Euh, di beral nuyoo nag suñu gan bi di madame la premier ministre Aminata Touré c'est vrai que sant bi naqari na lool te mu dajeeg weer wi waaye nag su ma nee suñu xarit la di suñu jigéen la dina am ñoo xam ne dañuy defe ne bu jataay amee rek booy tudd nit rek da nga sama xarit la waaye moom sama jigéen la. sama jigéen la ndax sama mag la man ak rakkam ñoo jàngandoo ci France te lu ñu bari xamul at ma may taxawal parti mu dajeeg 1997 euh, may wër nag mu doonoon lu bees beneen façon maay wër këram di wër këram di wër këram ba dem stade Urbam fekk ko fa ne ko damaa bëgg mouvement bi am ñaari président bu góor ak bu jigéen te jigéen bi nekk yow waaw loolu loolu du tey yaakaar naa ne bu ñu demee déwén mu daal di commencer def ay fan euh, kon nag su fekkee ne dafay ñëw fii dafay jaadu ma dalal ko dalal ko ci cadre boobu mais dalal ko it ci en tant que maire de la ville de Thiès loolu sama devoir la euh, ndax bu fi ñëwee te mu ñëw jataay boo xamante ni président de la République daf ko yabal comme ni fi premier ministre di ñëwee ni fi ministre yi ñëwee ak ñu ni mel dama am responsabilité di leen dalal euh, boole ci it citoyen d'honneur u la ndax ci 2014 bi muy am ci dëkk bi. Euh, li nga xam ne moom la ñu doon tuddee conseil des ministres bu ñu délocalisé jamono boobu président Idriss Seck moo fi nekkoon maire moom moo ko dalal ni ma ko dalale tey moom ak président la république mu def leen citoyen d'honneur jamono boobu jël na sax ci suñu turu conseil yi fi nekkoon san conseil am mu def leen ko mais ñëpp a nangu kenn taxawul parce que ñëpp xam nañ lu rafet la kon lu rafet dafa rafet rek. ci biir lu rafet loolu mu dajeeg weer wi nga xam ne loolu rek a fi xaj ci la ñu dalal yàlla nga dal jàmm. ah bu ma leen nuyoo kilifa diine yi ba pare ma nuyu suma rakk suma xarit monsieur le maire de la ville de Thiès Talla Sylla moom nag danoo yàgg. Hmm. ni ma ko waxee noonu noonu la amee muy suma xaritu rakk Assane Touré nekk ci États-Unis ay ñu nga xamante woon ca France ma xamanteeg moom it fii ci Sénégal bu nuy seet mat na ñaar fukki at ak nàngam ma koy nuyu bu baax muy citoyen boo xam ne bi royukaay la ca jamonoom ak ci léegi ndax taala noonu ko xamee ci am ñaari dëkk muy conviction ak fit loolu nag defe naa ni xaw na nañ ko bokk mm-hmm. xëy na moo woon taxoon ca jamono yooyu mu ñëw ba ci sama salon na ma damaa bëggoon ñu créer damay créer parti damaa bëggoon nga doon co-présidente man ko ah taala parti moom metti na di <laughs> mu ne ah mooy sama ambition mm-hmm. macha allah bu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax mm-hmm. moo tax ba mu taxawee gis Sénégal jël yoon woo xam ne àndul ak li mu gëm di ci wax di ci dox ba ndogal fekk ko ci agression boobu defe naa ne ca ña njëkk ca hôpital fekk ko bu tëdd ca laa bokkoon ñun ñëpp ñu bokk ni ko ñaanal ba alhamdulilah yàlla defal ko wër mu toog fii tey kon dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax modèle conviction nga ak engagement donte nu toujours la bokk fu nu fat waaye toujours rek mu ngi jiital teey ak respect yaa ngi may fàttali sànq ne effectivement citoyen ville lu Thiès la ni ko président doone ndax Sénégal nag teraanga rek moo fi xaj donte du nu bokk fu ñu jëm du nu bokk xëy na lu nu gëm waaye bu nu delloo ca kër yi ay doomu ndey la ñuy doon kon loolu it kilifa yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique surtout mm-hmm. war nañ koy fàttaliku bu baax a baax a baax bu ko defee njaboot gi pañ ñoo xeeb xale yi nga xam ne dañuy roy ci ñun di mën a taataan ci sunu ay kàddu bu ko defee lii nga xam ne moom la ñu xamee Sénégal muy dëkku teraanga dëkku tolérance ak ouverture yàlla saxal loolu mm-hmm. ñuy ñaanit yàlla di ñu may ñuy dese sago am sago yi dafa baax ci kilifa dafa baax lool bu ko defee boo waxee ñaari yat fukki yat ca ginnaaw bu la tegalee kaset yi doo rus doo rus donc loolu it di ci bàyyi xel dafay baax lool lool lool te taala bi ci lu mel noonu lañu ko xamee ah di nuyu bu